asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar déglu leen kàddu yi nga xam ne moom la Ousmane Sonko yëkkati woon teg ko ci benn policier ñu koy wax agent secret boo xam ne nii Ousmane Sonko dafa am lu mu ko waxaloon déglu leen kàddu yi. nekk ci mbir mi bokk na ci ñi ñi ñuy accompagner plaignante di ko di ko andi te di nekk tout le bureau. Omar Maham Diallo moom moi woo samay nit une semaine avant ne ko tel jour dina am confrontation tel jour dina am telle activité kooku mooy joxe l'information, information yi kon moom le dossier bi man loolu laa voilà nous déggandoo kaddu yi nga Ousmane Sonko yëkkati woon ko renseignement généraux policier qui xam civil mais Ousmane Sonko dafa wax ni ci nous avons information jox Ousmane Sonko ba Nampel Nampel division des investigations criminelles déglu nañu ko na Ousmane Sonko mi ngi koy d'inculpation donc may laaj ndax Ousmane Sonko deug la am du deug enquête bi dina ko leral nampel est-ce que mom da dan joxe ay renseignements wala joxewul ay renseignement mais mom jamono ju ñu toll tembe porte na plainte Ousmane Sonko ñu koy diffamation atteinte à la à la à la à la vie d'autrui ak yenen ak yenen yo xamni ni ñu koy topé Ousmane Sonko ci mbirum nampel may laaj ndax Ousmane Sonko boudé lolu Amna. est-ce que waron na taxaw ne diw mi moma dan ay information ci kanam aduna bi yépp nit ku la dan jox ay information est-ce que yoon la ngay jaar ci turum ci histoire bu demee ni